maaleykum euh, chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen dalal tey ñu ngi dalal euh, Fatoumata Niang euh, membre coalition benn Bokk Yaakaar madame Ba ñu ngi lay nuyu. waaw Khalil maa ngi lay nuyu di la sant di nuyu bu baax sa équipe bi di nuyu tamit internautes yi nga xam ne ñu ngi déglu te ñi nga xam ne tamit ñu ngi seetaan. ok ñu fàttali aussi responsable Benno Bokk Yaakaar HLM Grand Yoff nga aussi déclaré nga aussi sa candidature ci élection locale yi. je euh, suis chef de parti di diriger le parti Union pour le développement du Sénégal renouveau UDSR un parti qui existe depuis dix ans donc fee si Grand Yoff tamit euh, voilà bokk naa si responsable politique yi nga xam ne ñu ngi foofu. ok donc si élection locale yi euh, ñu ngi ñu ngi ciy jublu bo bientôt euh, trois mois le 23 janvier si je ne donc euh, te de candidature au fait au niveau de boof même sul Grand F sax gis nañu ku nekk ngi jéem a déclarer sa candidature malgré le président ne woon na que gars yi xaar ba mu joxe ay directive donc au niveau de Grand F aussi gis nañu une certaine tendance boof une pléthore de candidats mun nañu citer Cheikh Bakhoum Mora Cissé yow euh, sa jëmmi bopp Moussa Sané maître Sey euh, même Adama fay aussi moom il s'est démarqué donc naka nga mën a jàngatee loolu au niveau de Grand Yoff. mais xam nga loolu dama si am jàngat bu rafet rek parce que tamit sooy dem élection foog naa ni euh, chacun est libre de déclarer sa candidature mm-hmm. parce que politicien tamit su demee ba politique c'est pour des ambitions donc suñ si tollee ñoom seen bopp ñu déclarer. man mii bokk si déclarer sama candidature. Mhm. c' est parce que ku si nekk da jàpp ni yow soo demee si élection ya suñ la tabee yeyoo nga mën a jël mairie bi. Mhm. maintenant man sama bopp laa laa xam nga tey maa ngi si coalition bennoo Bokk Yaakaar euh, mun nañ ñu depuis dix ans. Mhm. su ko ëppul. Grand Yoff euh, di sama fief di sama baas maanaam su ñu koy waxee. juddoo fa dëkk fa jàngee fa euh, def fa lépp di fa def lépp ba fii ma toll nii. tey euh, foog naa ni Sénégal mën nañu wax sax xëy na partenaire la parce que à travers mes actions sociales mu ma mënti def. Mhm. te yeneen presse yu ñëw di couvrir Sénégal ne su bokk donc damay wax ni li nga xam ne tamit lu lu lu leer laay wax. Mhm. su ma nekkee fenn bërëb bokk si dans une coalition ñu ne dañuy jëm élection locale ma déclaré sama candidature comme ñu si des euh, euh, damay wax dafa légitime. Mhm. parce que en tant que chef de parti quand ba pare je dirige une coalition de partis et de mouvement mooy coalition action patriotique defar suñu gox. defar suñu réew. Mhm. donc su ma nekkee chef de parti foog naa ni euh, c' est une obligation sax man. Mhm. man ni je suis candidate parce que qui crée un parti c' est pour la conquête de quelque chose. Mhm. beneen bi weesu mooy daaw dama toog ñi may àndal ñi may nekkal tout le temps di politique. ñu ñëw ne ma dañuy woote assemblée générale mu ñëw toog ñu ne ma madame Ba Fatmata Niang lenn lañ lay wax. Mm-hmm. élection yu ñu jëm dans un an wala dans deux ans soo fas yéenee ne da ngay nekk bootu si ginnaaw kenn mm-hmm. ñun dinañ la ba du ñu ànd ak yow. Mm-hmm. parce que nag euh, xam nga nit moom soo demee bay jiite moomatoo sa bopp. ñi nga àndal foog naa ne seen xalaat dafa doy. ñu ne ma ah à travers toutes les actions socio-économiques yi ngay def. fekkee jàng bi yaa ngi si. fekkee tamit muy ramadan fête religieuse pour mu doon catholique beeg musulman bi. Mm-hmm. yaa ngi def lépp li nga mën population bi su la soxlaa yaa ngi ñëw. Mm-hmm. lii c'est une demande sociale. Mm-hmm. da ngay dem élection tabb sa bopp parce que tamit nag toll nañu moment bi nga xam ni góor ñi mun nañu Khalifa Sall de 96 euh, ba léegi nii en passant par Khalifa Madiop Ibrahima Mbaye ñoom ñëpp. ay góor la ñu. te foog naa ne duñu sooxee. ñu ne nag il est temps jigéen ñëw samp boppam biir Grand Yoff ngay doomi gox bi. def fi donc dañu bëgg yow sa bopp nga dem donc c'est une demande ma jàpp ne tamit nag man sax en ma personne du ma nekk di liggéey pendant toutes ces années vraiment am benn acquis sama doole sama sama sama sama temps mhm. lépp ma ko si def rek pour xool vraiment comment améliorer les conditions de vie des grands et foires mhm. mais toog ba waxtu bi naan damay yàqale sama sama li ma liggéey. donc mën nañ jàpp ni ñaari pression moo tegu sa kaw donc sa euh, ay partisans mais aussi euh, celle du président bi nga xam ne dafa ne gars yi xaar moomu choisir. waaw mën naa ni man c'est beaucoup plus. Mm. samay partisans. parce que ñoo ñoo tax may sonn. c'est beaucoup plus tamit waa Grand Yoff naa la c'est une social sociale. Mm-hmm. te tamit may wax ni tamit wóolu naa sama bopp. au delà de lépp wóolu naa sama bopp. Mm-hmm. parce que xam naa li ma def. benn bi tamit mooy comme li ñu ma wax rek dañ ma sas li ñu liggéey duñ ko yàqale. donc mën nañu jàpp ni actuellement sa candidature euh, c'est catégorique au niveau de Grand Yoff. donc même si le même si le président dafa choisir keneen. au niveau de Grand Yoff je maintiens toujours ma candidature. même si président dafa choisir keneen loolu lu ma si tontu mooy xam coalition mooy la coalition Benno tamit que ce soit notre parti que ce soit la coalition Action Patriotique que je dirige. Mhm. ñun depuis des années on travaille pour renforcer Benno Bokk Yaakaar. Mhm. ñu ngi siy xeex. lépp ñu ngi siy jàpp pour hisser le président vraiment au sommet toujours maintenir ko foofu pour tout le temps qu'on ait vraiment des résultats probants au tout euh, par rapport aux élections suñuy jëlee référendum ba législatif ba 2019 bi donc man dama jàpp ni xam nga man su may dem si dara mm-hmm. du ma am sikki sàkk donc dama jàpp ni man sama candidature elle est légitime te jàpp naa suñu sa eggee au niveau de Benno le président dina ma tànn comme candidat de la coalition. ok mais le cas de moom mi teel a démarqué wu ne nga jàngatee loolu est-ce que c'est frustré wul par rapport ak peut-être euh, yeneen candidats yi fa nekk. non par rapport ak frustration loolu man damay wax euh, politique ak rime avec la frustration. mm parce que kuy wax ak rek say aqulay taala te ngay politique di nga frustration man nii frustration lay dund ak dans la coalition mun naa dëbb mësa duggee ba léegi mm-hmm. maintenant nag chacun et libre de ses actes mm-hmm. tey euh, dama jàpp ni man je suis pas dans la tête de Adama Faye pour xam mm-hmm. la moo tax mu ber daaram ou pas mais si li ma koy woo rek mooy dans l'unité comme ñun ñëpp ku si nekk nag am nga droit vraiment poser sa candidature mais toujours nous sommes tous des candidats de la coalition. et euh, tey ñun si loolu rek lañ koy woo parce que foog naa ni ah, suñu booloo ñu ñëpp toog waxtaan autour d'une table fekkee gëm nañu Grand Yoff rek mënuñ trouver benn consensus man si loolu laay woo sax waa Grand Yoff. parce que les alliés ñun ñi on a commencé benn euh, initiative bi nga xam ne vraiment pour euh, jéem a fédérer. Mm-hmm. mais ba léegi ça ne marche pas parce que tu vois am na ñi nga xam bokk nañ si am na ñu ñëw am na ñu dul ñëw. Mm-hmm. donc dañuy woo ñëpp rek ñu toog waxtaan. waxtaanee ko ñu xool le meilleur profil tirer ko et euh, vraiment pour ñu le le le le meilleur devenir de de notre chère commune Grand Yoff. ok parce que on a remarqué que ni Grand Yoff bokk na si yi leen xaw a të tuuti boobu ba léegi donc euh, te surtout actuellement soo xoolee donc avec la co euh, boof les coalitions de l' opposition l' opposition même ñu ngi jéem a coaliser wu di jéem a pour am doole pour mën a euh, xeex Benno Bokk Yaakaar donc actuellement au niveau de Grand Yoff soo xoolee même est ce que loolu aussi du leen xaw a affaiblir mooy genre division boobu noonu. non xam nga loolu tey du ñu du ñu du ñu affaiblir parce que soo demee nga gis tey euh, opposition bi à Grand Yoff dañu coaliser woon. Mm-hmm. lors des dernières présidentielles de 2019. Mm -hmm. on les a battus dans tous les <laughs> mun naa ni centres de mm-hmm. vote. présidentielles yi mm-hmm. mujj. donc foog naa ni loolu du doon li nga xam ne daf ñu sonal. ba pare faut noter aussi ñun euh, la coalition Benno dañoo am damay saluer au si si si si si wax ji. tey am na ñi nga xam ne dañoo ñëw dolli si suñu. mooy soo xoolee la coalition de réew mi mooy mhm. waa le parti mi mhm. le parti PVD mhm. vraiment tamit ñooñu ñu am ñu am ñu am ay nit yu am valeur lañu ay nit yi nga xam ne tamit am nañu représentativité foofu donc tamit loolu foog naa ni euh, suñ ko boolee ah face vraiment à cette coalition bi ñuy wax loolu moom mën nañu nekk lu ñuy sonal lu ñuy tiital xam nga tamit suñuy jëm si élection chacun est libre de teg sa coalition opposition bi tey soo xoolee euh, voilà elle est divisée il y a plusieurs coalitions dans dans l'opposition donc mhm. euh, alors que une seule coalition au sein de la majorité donc foog naa ni euh, mbooloo mooy doon te tamit mbooloo boobu am nañ ko particularité bi élection locale yi ñuy jublu euh, yaa Khalifa Sall bi nga xam ne au moins boobu xaw na leen sonal aussi au niveau de Grand-Yoff donc euh, avec lui Sonko pur donc cette coalition boobu est-ce que seen xel dal na tamit waaw nga Khalifa Sall il a été battu aux aux élections de 2019 même mm-hmm. avec bu mu coalisé ak ñi mu àndaloon mm-hmm. donc le la le parti de Sonko man personnellement je les sens pas même dans dans, la commune man su may wax te yàlla tax donc Khalifa Sall c' est le passé pourquoi parce que Khalifa Sall nekk na maire de 96 à 2001 ba mu nekkee maire 96 ba 2001. après fa la gëjee nekk maire moom Dakar la gënoon euh, concentré. Mhm. tey euh, ñi fa nekkoon xëy na mooy euh, Madiop Diop mooy l' actuel maire. Mhm. donc on ne parle plus de Khalifa Sall. ah la caisse d' avance. non la caisse d' avance yëpp loolu mais quand même sooy xool rek. Mhm. si yoon. Khalifa Sall ba muy jógee mairie Grand Yoff 2001 la. donc Khalifa Sall n'est plus d' actualité à Grand Yoff. donc dañu toll bi nga xam ne ñun dañu dépassé yenn yenn aires yi. Mhm. et là actuellement lu may wax mooy l'actuel maire c'est Madiop Diop qui est le maire et tey am nañu ma jàkkaarlool te foog nañu tey ni ñu defoon si 2019 bi vraiment def ko si euh, yeneen euh, échéance yu mujj yi foofu rek la aw ak ñoom pour vraiment que. Euh, mairie Grand Yoff mhm. ñu jox ko la majorité présidentielle. ok pour avant ñu tourner page boobu au fait donc euh, par rapport ak toujours élection locale yi donc euh, naka nga jàngate au fait euh, coalition ces coalitions de l'opposition au fait donc surtout division bi commencé am donc ku nekk di jéem a ber côté. mais loolu lay wane l'opposition il est pas mhm. xam nga nit dañuy wax naan sooy dem si si xare foog naa dañ fay dem ak ay stratégie dem fa ak ay armes. Mhm. mais mënoo ñëw tey euh, je ma aw sax ma awaale tuuti ci la coalition euh, yeewi askan wi xam nga nit balaa nga naan dangay ngay yeewi askan bi dangay ngay yeewi yow sa bopp ba pare ñoom dañoo yeew seen bopp yeew sa bopp weesuwul mm-hmm. réew fekkee tey crise sanitaire am na fi mm-hmm. mën am mooy tàq kenn du la gis mm-hmm. yeew sa bopp weesuwul su mettee yaa ngi toog sa kilim su ma wooyee xale yi ñu génn ci biti say doom si kër gi toog soo toogee ba sa yaram metti nga dem wër salon de massage yi naan nañ ma massé ba pare tey nga naan da ngay yeewu benn askan mais Sénégal fii ku si nekk yaa ngi vaquer librement à tes à tes à euh, ñu ngi koy waxatee sax occupation mm-hmm. sénégalais ñi ngi xëy di liggéey ñi sport ñi ngi sport culture bi mi ngi dox ñuy way ñi ngi woy tey ñi jàngi ñi ngi jàngi fii amu fi dictature donc ban askan la ñuy donc vraiment man pour man c'est la coalition de la honte tey seetlu nañu premier jour ba ñuy def seen coalition coow fa la njëkkee am ñun ñëpp journalistes yi ñeen dafa nekkoon. Bougane désigné sous réserve. waaw mënuñu comprendre tey coalition am coow am récemment maa ngi liir ci presse bi gis ni Bamba faal tamit démarqué wu na. ñu jékki-jékki gis vraiment euh, ci biir euh, ci biir coalition boobu PDS topp ko. Mhm. yeneen parti topp ñu leen. mais donc euh, vraiment il faut tamit ñu bañ a nekk di leurrer les sénégalais yeewu askan bi ñoom nañu yeewu seen bopp génn ñoom fi ñu nekk jàkkaarloog askan bi bañ a nekk vraiment une coalition des réseaux sociaux bañ a nekk coalition di ngarkat ah, nekk vraiment vraiment <laughs> plus proche des populations loolu la ñuy xaar su ñoom man daal li may wax daal c'est une coalition bi nga xam ne xëy na hasardeuse qui est en train de se chercher. ah parce que du coalition Yewwi Askan Wi kese parce que y a d'autres coalitions comme euh, bu ñoom ab euh, PDS euh, bof y a aussi ñu annoncé woon suñu coalition grande coalition ñoom PDS bi boobu en fait malheureusement moom dafa dafa wane teel a génn ci coalition boobu. moo tax may la gis nga l'opposition se cherche tey mënoo nekk une opposition divisée. nga ñëw nga ne da ngay ñëw en face vraiment d'une majorité présidentielle qui existe depuis mën naa ni dix ans unie ñu renforcer wu ba pare ñun ñuy dem naan dañuy tiit donc bu wax la rek vraiment ñun nous sommes confiants quoi. ok waaw donc yaa ngi jàpp ne ñàkk biir moo moo mais ñàkk déggoo mooy lor ku ne. donc euh, gis te tamit xam nga euh, lu ne fàng kenn du ko jeex. Mm-hmm. gis nañ fi élection 2019 yi donc. jarul ñuy sori. <laughs> Ah, mais seen coalition bi aussi temps yi boobu xaw na mën nañ ne entre xaw na jaaxasoo tuuti par rapport ak euh, euh, problème mu passeport diplomatique yi d'une manière générale yow nan nga ko jàngatee. donc il y avait quand même des députés de euh, manière générale li ma ko jàppee mooy xëy na day doon li nga xam ne man dama koy du ma ko rafetlu en tant que citoyen beneen bi mooy. si presse bi lañ ko déggee comme ñëpp si presse bi lañu ñu te xam nga tamit euh, justice moom euh, ne fonctionne pas avec euh, mën naa ñi les émotions wala tey ñuy wax euh, une justice aussi ne fonctionne pas tey euh, vraiment avec ay fake news gis naa ni daal à travers la presse ba léegi que dañu introduire benn levée d'immunité normalement qui est prévu pour cette semaine mm-hmm. jàpp naa ne tamit nu avons euh, une justice vraiment très indépendante te tey il appartient au juge d'instruction de diligenter le dossier tey suñ demee ba nga xam ne enquête am na ba ñu situer vraiment tey les coupable ñu def ak ñu deful boobu dinaa si gën a mën a prononcer wu mais nag. Euh, dama jàpp ni rek yoon a ngi def liggéeyam et tamit semaine bii ñu ngi dugg ci levée d'immunité suñ su jógee tamit euh, voilà juge d'instruction mi ngi ciy liggéey te tamit ñoom ñoo ci des parce que tamit ñoom la ñu fay pour euh, ñu am ak ak yeleef topp yenn dossiers yooyu dinañ si gën a am ñuy leer si ay fan yi néew. si mm-hmm. laay gën a mën a prononcé wu mais là actuellement li ma gis ak li may lire ak li ma dégg rek loolu laa yem. parce que sur le fond vraiment man. parce que ñi si ëpp. xalaat nañu aussi euh, une justice à deux poids deux mesures en fait donc euh, par rapport ak euh, su nekkee dès qu'il s'agit de gens yi nga xam ne ils sont dans la mouvance présidentielle donc affaire du muy yéexee par rapport ak comme les les cas des activistes actuellement comme. kilifa Simon qui ont été emprisonnés par rapport ak loolu donc ñu boof ñu bëri côté boobu la ñu a kii aussi il parle aussi souvent de Bougazeli donc bi nga xam ne actuellement il est enquête <laughs> mënut a gaaw fii justice dafa yéex si naka kon xanaa vous oubliez le cas de Ousmane Sonko bi ñuy accusé de viol récemment euh, ba léegi est-ce que dañu dañoo euh, fan la dossier mu toll donc amul vraiment il faut qu'on arrête tamit aussi de leurrer les Sénégalais euh, lii am am na man su may jàll juste problème de kilifa ak Y'en bi li xew man comme tout Sénégalais mbetteel rek laa si jël laa si laa si amee. parce que tamit nag euh, voilà nous avons vu man ba ma ko gisee xooluma ko sax parce ma dama foogoon comme d'habitude ce sont des fake news mhm. ba ma demee ba xool vidéo bi ah laa am mbetteel Russie am si lu ma metti comment parce que damay ne ah ñun Sénégal ñi nga xam ne ñooy woote digle tout le temps sango suñu setul fan lañ jëm parce que tamit mënuma comprendre ma damay wax rek euh, ñun ñëpp ay ay ndaw lañu te tamit suñu kàddu dafa am solo di rawatina tamit les activistes parce que sooy toog vraiment di woote transparence di woote jub di woote yoon euh, dafay fekk tamit yow vraiment li ngay wax na refléter méngoo vraiment ak sa sa say say say jëf donc li may waxaat rek mooy vraiment c'est le mal sénégalais nañu gën moytu gën xam ni tamit euh, tey euh, mbir mi du vraiment bëgg rek ŋàññ pouvoir ba mu jaral ñu yenn yi parce que fii ku fi nekk am na li nga xam ne xëy na yaa ko moomal sa bopp mais na doon lu rafet rek parce que su rafetul rek tey dëkk nekk nañu réew mi nga xam ne lu may déplorer mooy nit day toog di la enregistrer nit day toog di wax nañu vraiment xoolaat valeur yi tamit nañu vraiment tamit xool euh, tey les comportement mm-hmm. parce que suñu melee nii ñun di mag di kilifa suñu doom ëllëg fan lañ jëm on aura vraiment peut-être xëy na une jeunesse pervertie te loolu jaru ko donc euh, méteel de laay jàngat si mbirum kilifa parce que tamit xaarewu ma ko foofu parce que vraiment ak ni mu doon demee ak coow li ak wax ji ak tamit ŋàññ gi mm-hmm. foogoon naa ni tamit tey euh, du demee nii mais euh, comme ni may wax justice tamit mooy def liggéeyam moom mooy def enquête am donc nañu xaar vraiment la décision de la justice xool fan la yem parce que tamit c' est une enquête c' est une procédure judiciaire donc man moom li may wax daal dans le fond dinañ xam tamit suupa la moo si xew ak lu si xewul vraiment. donc ñu ngi lay jaajëfal euh, Fatoumata madame Fatoumata Niaba xëy na ñu bàyyi la nga tàggatu aussi nga waxale peut sa programme euh, sa yéene aussi au niveau de de de Grand Yoff. waaw vraiment maa ngi lay remercier yow tey bu baax di remercier l'équipe de Sénégal di remercier bu baax tamit ñi ñuy déglu xam nga tey euh, Grand Yoff damay wax ci gàtt rek mooy ñun lu ñu soxla mooy une gouvernance locale lu ñu soxla mooy changement lu ñu soxla mooy innovation. moo tax si gàttal du ma xëy na sori trop si ay si si programme ma li may wax mooy tey innover mooy lu ñu bëgg mooy tey woote une assise citoyenne une assise de Grand Yoff maanaam Grand Yoff c'est 67 quartiers dans tous les quartiers suñ fa jéemee am deux représentants wala limite trois kii représenté femmes yi kii représenté jeunes yi ñii di représenté communauté yi xam nga Grand Yoff tamit euh, c'est le multiculturalisme ñun dañuy juddu tey wolof bi njaago bi séeréer bi catholique bi musulman bi ñun ñëpp vraiment ñoo bokk ndey ñoo bokk baay doo xam kii mooy feetu catholique bi doo xam lii mooy feetu musulman bi tey moo tax communauté yooyu tamit dañoo war a am ñoom seen baat ak seen ak ak si gox bi moo tax suñu toogee tey ñun dañuy def assise woo si ku si nekk suñ la woowee ensemble laa la wax de ñu décliner un programme pour Grand Yoff un programme local parce que toll nañu fenn fa nga xam ne man damay ne c'est simple nit ñëw rek ak i xaritam wala ak i njoñom wala ak i expert am defar benn programme rek ne ok programme bi la ñuy jaay bi non non il est temps qu'on implique les populations man man je suis beaucoup plus pour une politique citoyenne moo tax tey suñ doon dem bay dem que man may dem election locale nekk candidate à la mairie de de de Grand Yoff de Benno li may njëkk def mooy on va vraiment aller sur une liste citoyenne pour mën a associer tous les grands foires ah ak fépp fi nga bokk ñu jéem a am benn programme boo xam ne bés bu ñu demee si mairie ba programme boobu tey da doon programme waa Grand Yoff mais du nekk programme Fatoumata ak ñu mu àndal vraiment man si loolu laay gën xam parce que tamit toll nañu fenn fa nga xam ni nous sommes à l'ère du changement te si changement boobu moo waral tamit il est temps jigéen ñëw dem jël euh, mairie Grand Yoff parce que tamit soo xoolee dernières élections yi nous avons eu treize femmes sur cinq cent cinquante sept communes et c'est peu donc je lance un appel solennel au président Macky Sall de faire ñu xam ne ñun suñu bopp suñu joxee li li nu naa ni euh, fa la ñuy gën a fa lay a amee lu ko neex sax que mun naa ni sama sama càmmiñ yi donc euh, merci pour tout Khalid di la gërëm di la sant yoo tamit.